asalaamaaleykum moom mbokk yeeg xarit yi ñuy seetaan ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñu ngi rafetlu ànd bi ak eh, Equivox TV te nag dañoo wàcc fii ngir waxtaan ak askan wi li ñeewal wàllum négligence bi nga xam ne ñu ngi ko nemmeeku léegi ci hôpital yi ci Sénégal. tax na rek ñu wàcc fii ngir euh, jànkonte askan wi waxtaan ak ñoom ndax nag mi ngi bëgg ëpp loxo ñi ci euh, faatu bëri na lool euh, ba démb rek ca mujj fale ca hôpital régional bu Ibrahima Niass bu ko defee rek ngeen daal di topp ma ñu échanger ak askan wi. Ah, moom madame moom affaire boobu doy na waar parce que man mi la fois passée semaine passée am naa ci cas hôpital Fann sama petite sœur ah nekk urgence deux jours xam nga at ma gis fa ay cas yoo xam ne xam nga. da nga naan c'est pas possible waaw dama naan sax ndekete lii am na Sénégal or bañ ko doon wax ma koy dégg nii mais mosuma ko gëm mais man maa ci teg sama bët ah da ngay gis sax ñoo xam ne dañu leen di andi urgence pour ñu war leen sauver si tàng-tàng bi ñoo ñu lay bindal ay ordonnance naan la demal jënd te ki ki ngay wax amul moyen te bu ko jëndul mu dee comprendre nga man ma ne léegi nag borom xaalis yi am xaalis si réew mi ah yore seen alal normalement war nañuy taxaw ci hôpitaux yi ah ku am problème urgence ñu mën la dimbali te yàlla tax ba pare état bi li ñuy wax di ñu gëmloo ay développement man gisuma lool ci réew parce que réew pour mu développer il faut santé bi taxaw hmm? santé bi bu taxawee éducation bi taxaw agriculture bi taxaw loolu moo tax suñu mën a réew mi dox mais politiciens yi dañuy gëmloo ay ay affaire gëmuñu dara seen bopp rek lañu fi nekkal. malaat bi mi ngi nii feebar ma mi mi ngi nii ay IRM lañ ma wax ay ay deux cent cinquante mille trois cent mille loolu foo koy jëlee. ah da ngay yore li nga yore yëpp nga miraas ko nga nga nga nga def ci li nga am di daw di wut gos droite xaalis pour faj ko ñoom xaalis bi rek moo leen intéressé fajuñu tous waaw dañ ñuy nax ñun on est là depuis 1967 laa juddu Ndakaaru fekkee naa fi lu bare bare mais yi ñuy gëmloo nii c'est pas c'est faux man gëwuma leen politiciens yëpp yem waaw dañuy nax rek yéen seen bopp rek lañ fi nekkal mais bonne solution moo ko mooy état bi ñun suñu njiit yi fi nekk ñoom balaa ñuy jël ay milliards naan ñu ngi koy dugal ci ay terre ak xaw ma je ne sais pas nit ñi mënuñu faju loolu fan la am ban dëkk la am xam nga bu ñu gëm loolu loolu. mais nag euh, soxna si hôpital hôpital bi fi ñu fi wax ne fa la mbir mi amee man fa laay waxee ndax fa laa ko déggee muy hôpitalu Kaolack la fa am ñaaw na lool ba si kanamu yàlla euh, ensuite. boo gisee image yi one dis que on est dans fan lañ ne agresseurs yi fait ce qu'il veut tueurs yi fait ce qu'il veut kenn amatul benn soxla si mbedd kañ da ngay dem ba am heure booy génn ak heure booy dugg buñ demee ba tollu foofu kon war nañ mën a xoolaat suñu bopp te dañ ne Sénégal sénégalais ñu amoon ay temps lu ñu bàqee woon réewum teraanga xaw ma ndax mi ngi am ba léegi. du su hôpital boobu rek mais ay hôpitalam ndax am na ñoo xamante ne franchement personnel ba ñu am rek am nañu xarañte jàngal nañ xam nañ ni ñu accueillir mais kon dama naan ak ay hôpitalam mais genre hôpital yooyu di def loolu franchement parle war nañ mën a xoolaat seen bopp war nañ mën xoolaat seen bopp mu nekk si personnel bi. que daal loolu ñaaw na soxna si. dëgg si yàlla nag mosuma ko dund mais gis naa façon bu mel noonu man sam bopp dama feebaroon dem hôpital mais malade ba ñëw sama kaw man maa mujjee ñaan ñu jël ndax xëy na la ma doon def méttiwuma feebaruma opération laa doon def par rendez-vous laa doon ñëw ma ñaan ñu jël ndax nekk na cri loo xamante dafa critique ma ñaan rek pour ñu jël ko man même bu ñu ma mënee jox rendez-vous trois jours quatre jours. ma accepté ko mais moom ki ma gis nañ ko jël ngir yàlla tax léegi fi mën a dindi soxna si loolu léegi fi mën a dindi mooy euh, bu fekkee dañ ne suñu côté nguur gi la war nañ mën a am benn waxtaan bu rëy ak suñu médecins yi suñu docteurs yi ndax xamante ne ñoom seen bopp bu ñu téye appareil di ko teg si kaw nit nañ jàpp ni kii nit la damay ñaawle nag benn affaire bu graaw bi am mooy lan da ngay indi sa malade ñoom xamuñu sa poste fu mu toll ñu ne la xaalis avant ñuy jël yow ka ngay jël muy malaat mais dawul mi ngi sa hôpital bi mais jël ko urgence moom bu yorul ay parents bi ñu xamee ne mi ngi fa dinañ xam ne hôpital la ne ñu ñëw indaal li ko foora li li li koy dimbali pour mu mais nag na ma yàlla baa son ki ki dee kaw la yàlla moo tax moo moo moo lay sàkk mooy tudd fi ngay dee ak nooy deewee mais bu woon démb bi dafa am loxo bu si bu loxo hôpital boobu mi ngi si. waaw man loolu jàngat bi ma si am d'abord mooy nit ñi si boppam ñi nga xam ni ñoom ñooy faj si hôpital yi war na leen xoolaat bu baax xaw ma manque formation la xaw ma daal négligent bi xaw ma si état bi la xaw ma si fan la mais daal en tout cas nit ñi war nañu xool ni doomu aadama bu jógee ba ñëw ba hôpital war nga ko mën a faj sans laaj ka dara. waaw war nga mën a faj ba pare boo ko fajee pare nag même boo koy téye wala nga téye carte d'identité wala nga téye daraam nga téye daraam loo xam ni daana wane ni kii ni amee na fi temps si hôpital bi loo xam ni sax boo ko fajee ba pare du mën a dem seeti kenn loolu loolu lañu war def mais du waroon indi nit ki te doo ko faj ba pare mu mu dee say loxo dootoo xamante looy def loolu loolu baaxul daal loolu baaxul si réew baaxul si dëkk waaw surtout maa nag ak nit julit ak julit loolu tamit war na ko mën a moytu loolu baaxul daal nit ki même boo koy faj nga faj ko ba mu wér ëllëg même booy téye carte d'identité wala nga téye daraam loolu lu am solo la daal. waaw loolu moom xam naa ni moom président moom dana jël ay matuwaay yu wér. waaw ndax ku ko ku xam président mag Sall xam ni moom yenn yi ah, lu jëm si wàllu santé bi moom wax dëgg yàlla dëgg neex yàlla mi ngi siy def mu ngi siy def lu ne. waaw mi ngi siy def lu ne c'est que nag lépp nañu ko matale mais ñun citoyens yi ñoo war a xolaat ñu tamit suñu bopp ndax du nanu bàyyi bu dara amee rek ñu war nañ ci wax président wala lii wala laa. avant président ñun ñoo war a mën a xool sunu sunu nu ñuy toogee sunu comportement si doomu aadama yi ñun ñoo ko war a mën a xool waruñu mën a xaar rek président addu rek ñu doogay def li nga xam ne moom moo si war man noonu laa ko gisee daal. waaw loolu de daanaka ñu ko mën a waxee rek mooy jaarul yoon ndax médecins moom bu ñu leen fi tegee pour doomu aadama la waaw rafet nag fii ñu nekk Sénégal ndax jàmbit moom bëri na ci ñëpp donte ba amul mbokk bu ci nekk sax. di nga dégg ni soit nit ñi di ko wax foo romb ñu koy hôpital yi hôpital kon nag ñi si nekk di liggéey ñoo war a xoolaat na ñuy liggéey te xoolaat na ñuy toogee te xam ne ay njaboot lañ ndax mession ku xës ba nekk rek njaboot nga ku nekk dina la fekk si waaw ku am dina ñëw ku amul dina ñëw yow nag yaay xam ni nga mën a nekkee ñoom waaye bu dee ku ñëw rek nga tegee ko ne wala ku ñëw urgent urgent ñëw nga teg ko ne sa mbokk ñëw nga dugal ko tamit yooyu dañ koy gis si ci ci hôpital yu bëri da ran ba war a dugg war a faju mbokkam ñëw ñu puus la teg la fa kooku ñëw dugg faju ñoo war a yamale yëpp mu doon benn te xam ne Sénégal bi ñoo ko comme ñoom lañ leen fi teg ñu war ñoo faj buñ demee ba jalgati kon ñun xamatuñu jëm waaw te dëgg fi mu toll dafa yàqu lool ci ndax ndax boo gisee hôpital yi moom daanaka boo leen waxee ñu ne jumtukaay yi fa war a nekk amu fi te buñ leen ko jëndee te ñoom ñu fi nekk tamit duñ faj amul njëriñ ñoom ñoo war a def lu ñu war a def ba pare ñu doog ko indi jumtukaay yi faj nu ñi jumtukaay bu ñëwee ñoom faj nit ñi tamit amul benn solo. loolu moom jàngat bi moo ci am mooy nu ma ko mën a waxee ci wolof yaa ma neex da cee am ndax bu fekkee man aw ma doole bu nga xamante ne mën naa dem topp dem police def def médical wala def def def def porte plainte ngir ngir topp ji ko aw ma boobu moom mi nekk médecin gën maa jot loxo su ma defee su defee erreur boobu bu demee taxaw si yoon muy wax. ñu ñu ñu ñu bàyyi ko mu demal ñu téye man mi nga xam man ma am problème ndax ñaata yoon ngay gis nit ñoo xamante ne médecin ñoo koy rey dañuy mujj dem déposer plainte dañ koy topp topp ba sol du mujj fen loolu nag ñi nga xam ne ñoo yor réew mi ak ñu yor wàllum justice ñooñu ñoo ci war dox bu baax a baax boole ñëpp ñu doon benn ndaw mag ñëpp ñu doon benn amul kii ci nguur gi la bokk ak amul kii daa am këyit amul kii amul këyit ñëpp doon benn ku nga xamante ne suñu borom dogal na nga dem mel ci affaire yi mel noonu boo demee ñu taxaw lañ la war a taxawoo li war ci yow ñu def ko boo bindee sa plainte ñu topp ko ba fa mu waaye ñaari fan lañ koy topp ne la jeex na wala ñu xool liñ la mandat liñ la jox xaalis nga jël ko loolu moo fi dox réew mi ay joxe xaalis loolu nag dafa war a jeex ñu teg ko ci yoon ndax dañ ñu wax ne yoon la ñu war a woote boo déggee suñu président bi sax ci yoon la ko teg kon nag ñoom ñi nga xamante ñoo war a ki war naa wax ak xamante ne ñoom la jox justice ñu teg ko ci yoon ba nga xam képp ku mën a dem ci hôpital tamit lépp loo fa am la naqari boo defee sa plainte ñu mun ko topp ba ba ba loo ci bëgg rek nga am ko ci. waaw loolu à ces fréquences dama koy dégg quoi parce que manque de négligence du yoon parce que ñun ñëpp dañu war a nekk ay patriotes nekk ay euh, ay citoyens euh, patient bu ñëwee nga accueillir ko defal ko li mu bëgg parce que loolu mooy seen rôle loolu loolu rôle de la parce que un citoyen bon man je crois que nit bu ñëwee jaaxle ñëw ci yow war nga ko accueillir jàppale ko dimbali ko. parce que loolu parce que malade bi euh, bon bu ñëwee du xam du xam du xam fu mu nekk waaw bu ñëwee yow yaa ko war a jàppale dimbali ko soutenir ko euh, dimbali ko daal jël say engagement parce que yow ci loolu lañ la formé waa loolu loolu bon d'une part autorité am nañ ci part de responsabilité waa war nañu wax ak euh, war nañu wax ak ci médecins yi bon parce que médecins yi tamit ay jàmbaar lañu. mais d'une part comprendre euh, euh, question de communication la rek question de communication la bu ñu waxtaanee comprendre que ñu ñu loolu. Euh, jàngat bu ma ci am bu ma leen nuyoo yéen ñi nga xam ne yéen a ñëw fii tey di ñu bëgg a xam ma maa ngi ci jàngat benn ñun ñi nga xam ne ñu ñooy feebar laay njëkk ñaax ba pare ndax nit bu feebaree war naa mën a gaaw a dem faju ji avant avant ngay sonn bañ lay irsan ndax euh, boo feebaree itam toog naan suba dinaa wër ginnaaw suba naa war mbala nga jàdd fi dem ci pharmacie yi ñu jël ñaari comprimé ñett ñëw toog xëy na dalaa calmé xëy na doo wër wër gi nga war a wër sa yaram mooy xaw a dal rek loolu itam da ciy suyee euh, ñi ne ci hôpital yi nag ñoo ñoo xam la tax ñu nekk si hôpital yi nag waaye nag ñu itam euh, buñ demee hôpital doo am urgence ñëw ñu xaw a négliger ñu xëy na daa am ñeneen ñu gën a kii foofu lay xoolee yenn saa yi mais nag des fois dañ ñuy xaw a seetaan foofu ndax ku am na ndey ku mu amul ndey dafa xaw a bëri ci yu mel noonu ndax ku mu am na ndey ku mu amul ndey gi ma wax ko mooy ma ñëw am fi mbokk dañ may dugal irsan sans may rang mais su ma fi amul mbokk dañ may xaw a seetaan tuuti ba dama énervé man mi indi sax dama wu loolu itam da ci am des fois te loolu itam bu fekkee ne mën naa ñàkk itam dañuy gënal te kam ko jiite nag ah ñun tam ñu mujj duñ leen fakastal itam waaye ñoom tam nañuy xal di góorgóorlu loolu daal laa xaw a xaw a jàngal ci affaire bi ba nga xamee ni daal euh, dèjà dañu am rëq-rëq boobu bu buñ duggee ci biir. waaw loolu itam ba tey am naa ci benn jàngat boo xamante bi euh, mooy ki nga xamante bi danga ko indi amoo xaalis léegi ñu xaw laa négliger loolu euh, waruñ koo def sax ndax ñëpp bokkuñ yem te xalangu olof Njaay moo ko wax xalangu dajul suuf mais su ma ñëwee am sama 1000 francs faj ma sama mille francs moo boo boo xoolee ne kii moo yor 5000 borom 5000 bi laa njëkk dugal loolu itam day paralysé loo ki nga xam moo am 1000 francs yi. non déjà sax am na ñoo xam ne du leen jaral dem police ndax li tax dem police bi amul intérêt da nga dem police mel ni affaire bi naqar bi day gën a yokk waaw ndax ñun ñoo ñoo yor suñu kaaraange nag ñoom la ñu wóolu ba teg leen fi. mais boo demee lu mel noonu bu la daray daal nga dem nga dem police day mel ni naqar bi day gën a yokku daanaka ngay toog sax bañ a dem jàpp ci yàlla mooy gën a jege ci nga xamante bi dañuy ay jullit lañ des fois da ngay tayee dem ndax police yi boo fa demee doo am benn maanaam résultat boo xamante moo tax nga jóg jël décision bi nga jëwoon dem fa doo am benn résultat boo xam ne dina la leer yooyu itam daanaka day yokk xar mi karaw rek moo tax dèjà dañuy daal itam dañ koy muñ rek jàpp ci borom bi moo tax solution bi mooy comme ça nii ngeen koy defee nii rek di ñuy yaatal di waxtaan di déggoo rek comme ça noonu loolu daa yaakaar ñooy trouver solution xam nga ñoo ne ci kaw na xëy na dinañ tëroo solution bu ñu gisee yu mel nii. non état moom macha allah ñu gën a góorgóorlu rek jàppale ñoo xamee ne ñun ñoo leen fi teg waaw te teg leen fi nag moom wóolu leen tax ñu teg leen fi ñu defal ñu loo xam ne moo gën. voilà chers téléspectateurs ñoo ko gisoon do askan wi naqarlu nañ ko loolu ñu ngi leen di jox dig daje beneen yoon ci yeneen itam.